ak activité yi rek xam nga nuyu ba Moscou asalaamaaleykum from di leen nuyu baax di leen ziar ak activité yi rek xam nga nuyu ba Moscou ñu naa di leen ziar Mr Luku rafetoon di leen nuyu di leen ziar mais mbay mbay mbay mbay mbay mbay mbay gay provocateur mbay gay ay waay mbay mais mbay Macky Sall lu mu fi wax loo xamante ne dafa uteeg dëgg man gisuma ko gisuma ko fii jamono bii ñuy wax nii mbay kuy waxal yàlla tey wax dëgg sëñ Mourou Sam pardon maa ngi nuyu ko kuy waxal yàlla laa wax am nga fii dafa bëri ñu bëri la ñuy claim naan man ni si dëgg laa damay taxaw pour wax dëgg gis nga ku nekk sa dëgg la la tukulóor ba waxoon waaw mais kuy waxal dëgg man sama gis-gis mënoo gis lu na weng weng aaral dégg nga nga ñëw bàyyi ko fa dem di wax leneen ba pare ne dëgg ngay waxal mënut a nekk mënut a nekk mbay fii dañoo am ay liste ñu déposé biñ déposé moom benn candidat boo xam ne dañ ko rocc muy Karim Wade mbay Karim Wade ak lu nit ñi mën a wax bi yeboo sax ñu ne alors décret ba France ni ñu ko mën a jàngate ñoo xam mais mënoo a bàyyi Rose Waldini kooku moo retiré boppam bu retiré toon day dem élection nga jàpp ko si loolu ba pare nga bàyyi ko mu war a dem élection Karim Wade nga nga nga nga continuer roccem bi ne moom du dem élection ba pare ay ni taxaw gis loolu ne loolu dëgg man kenn ba gëm mooy lenn da ngay taxaw ne franchement parler lii du dëgg luñ apply si kii dañ ko war a apply si kaa waaw loolu mooy mooy mooy dëgg si Rose Waldini waxuma sax dem si ñi nga xam ne jàpp guñu leen ñooñu ñu ngi ko commencé di ko utal lay naan waaw parce que xaw ma lan ñu koy waxatee mais yow nan nga mën a bàyyee Rose Waldini ba xam ne ko jàpp garde à vie ba pare libéré ko ba pare mu ne liste dix-neuf yi nañ continuer dem élection loo fu ñu teg ni ay nit taxaw ne dëgg la ñuy waxal bët bu set mosuñoo laal loolu nanguñ koo laal mbay Sénégal yi fii dofuñ dam moo tax Sénégal yi génnuñ si liñ leen o parce que Sénégal yi si am nañ ñoo xam ne xam nañ dëgg te ñeme ko dañuy taxaw wax ne gis nga dëgg la sax Macky Sall ñun neexuñu lim def ak loolu yi mën nañ ko wax mais nag fii dëgg nekku fi am na Sénégal ay gor pire lañ kenn moomul leen loolu la ñuy wax moo tax dañuy maandu toog xam ne lii guerre politicien la mooy li ma doon wax depuis depuis depuis depuis c'est la classe politique wàccal ma toog moo fi nekk ñoo xam ne bañ koy lal si ay ndar jaral na leen lu nekk seeni supporter tim di leen jàppale si nar yooyu noonu te buñ taxawee bëgg wane ne ay dëgg nit dëgg lañ c'est pas vrai lii moom ku ko gis ba pare attihoo si ba pare door dem nag sa la nga bëgg a dem doo nit dëgg pour man danga koy leen laa nangu da ngay wax ne ah conseil constitution taxaw leen nag mënu leen fay génnee Karim Wade si la ñaari nationalité si la dafa def pojëri dafa dafa xaw ma lan d'honneur ngeen jàpp Rose Waldini lu gën a grave sax li Karim Wade def def pojëri ba ngeen téye ko ngeen bàyyi ko ne waaw moom léegi il est ok il est ok pour mu dem élection loolu nitu dëgg dana taxaw di ko xool di ko wax ah dañ waxante dëgg dañ leen waxante dëgg dañ leen waxante dëgg gars yi dañ leen waxante dëgg te arrêté affaire yi ku ñëw bëgg a amalgame bëgg a dégg di gravité affaire bi non du ça passera pas lu demee noonu donc mbay Macky Sall waxuma yeneen ak yeneen man de man buñ ma toppam man xam nga am naa idée man si sama idée waaye nag kenn du fi dem si leneen sans compter ñi régler li ñu war a régler ba pare man su ma sooyoon Macky Sall cool bëri na da dem jox réew mbaxam am fam ñoo xam dañuy dañuy fag ne nangam naan ma jox réew mbaxam ñu toog xool fii ak cinq ans waaw Macky lim bi liggéey amul kenn koo xamante ne si waa APR yi wala waa kii da nga sëgg kenn sëggu si même même opposition bi wax nañ wax nañ lu baax li mu def mais dañuy politique waaye nag yàqiti bu daal ñun ay individu ñu ay moodu moodu dem di liggéey def suñ poste kenn fayaluñ suñ bil kenn fayaluñu dara mais ñun war nañoo ñemee xanaa taxaw wax lii lu dëgg la yàqiti ku ne dem si par parloo yi waaye yow contre nit ki contre nit ki ko xam ne bañ ko bañ goo xamante ne yow fi nekk tax na sax yow wax ci dëgg c'est grave lii nag moo tax may wax naan loo bañ bañ bañ nit bu ko sosal waaw c'est le problème yow dafay yàq moral doomu aadama quoi beneen bi mooy sëñ Modou Samb interpellé ne mu taal ñu interpellé ñu bëri ko waxtu fii nii Sénégal ah ñu bëri koy wax fii si diilu Ousmane Sonko bi fii Sénégal loolu foog leen na tax bu ko taxut Sénégal yi ne yaram ci noppi ñu bëri nag laa la wax man dañu ma si xam ñu wax loolu noonu Ousmane mi ngi si diil Ousmane mi ngi si diil kenn xamul nu mu yem waaye loolu itam bon man de aw ma li ma leer wax dëgg yàlla nag sama diggante yàlla waaye li ma xamoon daal mooy ñi ma gis nii si groupe bi nga xamante ne un deux ñu ak ci seen nit un deux ñoom gëmuñ kenn da nga téeri complot dirida daa dégg nga te ñemu ñoo taxaw am njàmbarte daal na ah attention nit ñaa ngi wax lii te ñu koy wax duñ groupe Macky Sall gi te ñun gis nañ ay firnde yoo xamante ne jaaxal nañu ñiy libéré te Ousmane Sonko waxoon na ne bala maa waxtaan yoo xam teg nañ ko fii si groupe bi Ousmane Sonko waxoon na ne bala maa waxtaan ñi libéral ma nit ñi sama nit ñi waay waay waay waay waay waay waay ku ñemee wàll di wax dëgg ana waxkati dëgg yi ngir yàlla la soo génn leen même bu dee benn minute la nit même bu dee trente minutes nga koy jël sa dund bi nga nekk gor nga wax ko waaye koo xam ne yow dañ la dañ la dañ la dañ la coloniser mentalement ah yow ñemoo wax sax imam da waa Pastef ñoo gën a ñàkk freedom ak seen sympathie yi waa Pastef seen sympathie yi ñoo gën a ñàkk jàmm imam Dramé mi ngi nii wax lim gëm ñu ne ko tey nga dee soxna sax da wax na ko fi fi mu nekk am na ñoo xam ne fii si groupe bi ñemewu ñoo ko wax dëgg parce que buñ koy wax rek waa Pastef dal seen kaw wala ñu kii parce que gis nañ ko fi répétitivement répétitivement donc mbay loolu la foofu la Sénégal toll tey waaw dama nga uyu si si si sëñ Modou Samb interpellation bi waaw loolu moo gën a yow ngay toppatoo ay Macky Sall yi moom Macky Sall moom la mu wax ak la kii na bu tuuti daara dañ wax ko di ko def waaw yéen kay seen waaja waxagu nekk fële dégg nga dañu ñëpp di ñëw joxe affaire bi toppatoo leen loolu am ngeen liggéey bu baax waa leen góor
salaamaaleykum la famille di leen nuyu di leen ziar El Hadj Niass Luqu Luqu Luqu ak Issa Diarra Luqu seen nuyoo bi dafa dafa nakari trop an ko ñaqu bara bara yokku mais nuyu leen ziar leen di nuyu ñoom booy séeréer tonto Sadibou Ndoye gëj na la dégg tonto Bamba nuyu naa la soxna Fatima moom fan la réer ñu ngi koy nuyu di ko ziar Fabis Diawara Imam Malick nuyu la ziar la di nuyu bari e lay saar lay saar fan yi duggante nga ci tenal yi de wala taw bi moo bëri foofu comme fii mais maa lay nuyu di leen yaat di nuyu bu gaa yëpp di leen bëgg lu bëri ji bi nuyu ko Sénégal bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax Sénégal bi jàmbaar bi nuyu naa ñëpp ah soxna Aida soxna Fatima soxna soxna yëpp maa ngi leen di nuyu Soda nuyu naa la. waaw El Hadj Niass Mbaye Mbaye maa lay nuyu Mbaye borom ay di la nuyu di nuyu Fodé Fodé Kang Fodé maa ngi koy nuyu Babs beeg si ñëpp ah ziar ñëpp Pape Daouda El Hadj Niass moo neex El Hadj Niass yow. nga ne Karim Wade dañu ko bëgg kale bëgg a bàyyi Rose Wardini mu dem mais dafa am recours bu ñu def ci Karim Wade est-ce que Rose Wardini wala keneen ak keneen te recours yooyu ñen ñoo ko mën a def ki nga xamante ne si ne candidat la kooku rek moo mën a def recours ci moroma Amadou Ba bi jéem na ko ci Bassirou Diomaye Faye jàllul jéem na ko ci Cheikh Tidiane Dièye jàllul ndax jàppul ci dëgg Elaas Niass nañu bàyyi suñu yi ñuy def gis naa la ngay saafante ak Serigne Modou Samb Serigne Modou Samb ma lay nuyu di la wax ne gis nga am na loo xamante ne si ne ñun ndawi tey ñoo ko dul may kenn li ngay wax ci Imam Dramé ñun ñii ñooy ñi ko doon dal tey génn na xam ne nekk wàcc na ci yoon jéggalu na Pastef ak benn box yaakaar dafa bokkul. ñu nekkul ne lu lu nit ki wax rek ñu ne la yarhamukallah Cheikh Yérim Seck bi nga fi doon tàgg toujours ak Maïmouna Ndour Faye démb seen kaw lañ doon dal. keroog maa ngi gis Abdou Mbow di wax di may mu la Ndour Faye dalal ko muy wax wax boo xam ne da ngay xam ne kii wax ji muy wax mooy que ne may mu la Ndour Faye dañ koy yónni dañ koy yónni gi ñan la bëgg wax dafa bëgg wax Amadou Ba moo ko yónni yéen lijjanti leen seen problème bopp te ngeen bàyyi ñu ñun suñu biir nee nga nag dañuy dil ñun waa baax na dañuy dil bu fekkente ne si ne waa Pastef dañuy dil dana leer bala ñu ci xam dara ne nañ doxal ba ci kanam ñun suñu parti dafa am lu ko tënk muy dox ci dëgg ak jubal ñun ci loolu la ñuy dox kantaa nag ay comploté wala njuñ njaaj xam nañ bu baax ñun ñoo koy def waaw xam nañ bu baax tam ci ñen lañ ci toqatal ñun boobu même boo bokkee Pastef ah am na loo xam ne erreur yoo xam ne boo ko defee da nga génn jégaluwaat wala dina la coûter cher waxuma laa nag koo xam ne bokkoo ci toog fa nga toog di wax lu la neex loo xam ne Serigne Modou Samb picc mu lakk dafay bëgg morom ñun duñu ñoom ñoom duñu ñun ñoom ñoo yàq Sénégal Sénégal dugg tey ñoom ñoo ko fa dugal tey bu ñu demee ba président bi nga xam ne moo njëkk a ñëw Sénégal fabriqué ay milliardaires ci li li askan bi moom nga jël ko jox ko ñenn ñi tey jooju Macky Sall ñëw continuer loolu waaw nag tiit dafa jot ndax jàpp naa ni bis bu Pastef ñëwee 2000 ba tey dinañu saytuwaat li fi am lépp ci lu ñaaw moo xam càcc la moo xam faat bakkan la moo xam lu mu mënti doon dina nekk mbir yoo xam ne lu ñuy seetaan la ndax Sénégal ba mu dérapé moo yàgg te dafa jot ñu tegaat ko ci raay bi dafa jot ñu tegaat ko ci raay bi dégg naa nag ci say benn wax Elaas Niass nga ne yaa ngi dégg ñuy ruumanaat Elaas yàgg nga ñu wàcceel fii ay nit yoo xam ne li ñuy wax ci Ousmane Sonko dara amu ci te nit ñu ñaaw lamiñ lañ bay dugg ci ay waajuram kon boo ñëwaatee tey dañu kàll naan am na lu ñuy ruumanaat ak wala bàyyi bi ñu bàyyi nit ñi ka doon jàppee mooy jàppewul ci dëgg moom moo génn fii wax ne dafa bëgg ay ministre am bi muy wax lii sax boobu yàgg na temps yii ci gannaaw lu fi njëkk a wax loolu ne dafa bëgg ku dugal liberté provisoire ñu appuyer ko mu génn wala ñu bañ ci opposé kon ki tiit xam ne moom jëf na fi jëf ju bon def na fi jëf ju ñaaw jëf ju ne wéng ju ne ah tey maa ngi gis ñu ne si suba gi réformaté ñan la ñuy waxal famille yi nga xam ne ñoom la ñu bis bi tàkkoon seen kaw ana famille yi nga xam ne ñoom la ñu dóor ay bal ñu jaaxaan ci mbedd mi loo wax ñu ne bis bi ñu sànni woon bis bi bis bi bis bi bis bi te ba tey man dafa luus tey damay seetaan waa ji mu ne man baale naa mais ba tey dafa luusan ba tey sax da nga naan lii est-ce que est-ce que est-ce que mbir la yoo xam ne sax nekkul ne gars yi ci ci ci ci ci série yooyu ñu doon joué ci lañ nekk ba léegi wala ah ndax yàgg nañ ñu wax lu dul dëgg ba nga xam ne tey dee sax danañ ko tàggee kenn du ko gëm dinañ ñëw ne dëkk bi dara xew na fi kenn du ko gëm ndax njiit dañu sàkk ci moom mu dëggu tey dëggal tey jubal mais njiit yoo xam ne ba ngeen fi nekk ba léegi du ñu wax dëgg du ñu jubal buñ luñ la mënti wax doo leen gëm fii la ñu doon wax ay forces occultes ak ay fati armée bi génn daaw weddi leen ñi war a seetaat seen toogaay seetaat seen bopp mooy ñooñu ñi nga xam ne tey dañoo amoon ay lobby def lu leen neex Cheikh Yérim Seck dégg naa ko démb dèjà moom presque pare na ci mbiri Sénégal moo lay wane def na li mu bëggoon a def lépp di fi way li mu doon liggéey lépp pour Macky Sall def na ko nee na moo ngi lion dafay jàngale bu bu état bi jeexee moom day pare ci Sénégal day dem feneen ana fu muy toog bàyyi neutre ci politique Sénégal nekk ci ay mbiri boppam moo lay wane ne Macky Sall gars yi Sénégal mosu leen woon a ñor dañ ko jàppee benn dof rek bu ñuy lekkee xaalis di xool li mu bañ ki mu bañ ñuy dal ci kawam di ko liggéey liggéey woon mu ànd ceeg ñoom ndax nit ku bon moom bu gisee ku ko mën a defal lu bon da da lay da lay da lay takk. te fan yi ñu mel ne Moustapha Diakhaté keneen ak keneen météo jiw ak ñëpp jëfandu li ñu doon liggéey ci dafa jeex te dafay dàkk ñoo yaay nag jëfandu gis nañ fi Birama gis nañ fi keneen ak keneen tey Idriss Seck bi ngeen doon tagg nee na demul ca dialogue ba léegi kan moo fay dem. ba ci bu ne Abdoulaye Dione sax dafa mel ne ku déggoon ñu ne ak seegul ci suba si léegi Macky kan lay toogal ministre am Amadou Ba bi nga xamante ne si ne moom dañ ko takk rek di ko diri fu ñu ko dugal fa lay dugg laay yàlla rek moo bari doole loo gis ci àdduna dafay jeex.
allo salaamaaleykum ala ko Dakar maa ngi saara ñëpp suba si si ngoon si ay na six heures den genre ñëpp waaye dama jël nuyu bi rek jox ko jibi si yéegal ko si kaw jox ko frère yi sœur yi tout le monde su ma limee dama jëm man déglu naa waa ji si TFM comme si si si liggéey laa nekkoon ba ma jëlee pause seetaan ko si comme suma kit fam appliqué suma téléphone fam application télé télé kii code laa def si kii bi quoi si télé téléphone bi chaîne yi bëri mun naa ko seetaan et puis waa ji man pour man di waajuru waajuru ñu faatu si si bis bi c'est faux koo xam ne nga ne nga ne eh, yaay eh, waajuru kii nga et puis moo ñaata mu ne yaay ji mu ne ya- yaay ji ah affaire bi de métti na si yaay ji bu léegi ci man baal naa leen baal naa leen ah et puis nguur gi ñëw na def la mais c'est c'est li muy wax sax ku ko déglu da nga xam ne lii kii vraiment du waa ji quoi lii ku ko déglu nga xam ne kii kii kii kii ku jurul doom yi c'est faux mooy nguuru def na lépp ñun nañ gis ma ñu ne eh, jàpp nañu jàpp nañ ñu def loolu xam nañ ñu xam nañ ñu def loolu xam nañ ñu def loolu Eh, c'est- c'est nga- waa ji man dama ko seetaan booy dama fulaan ma la kii kii jurul booy yi c'est faux day fen day duul montage la rek di leen bëggee am na ñoo xam ne fay yi mel ni fa boo ko déglu soxal lay bon quoi ñi et puis ñii ñii ñeneen ñi nag ñii seen doomu gaañu faatu ñii koo xam ne géejewaay parcelle ki yore drapeau bi nit police bi tiim kii ko so soq maa ngi jégalu quoi di leen jaar baale màkk quoi oui man maa di son Idrissa Seck moom bon xam li mu def li mu la xam na ko xam lu tax Macky Sall ku ko jege jege ki rek laa wax yàqu nga bi yexet waa PDS ñii jege ak kii c'est- gis nga kenn du waxatul sax affaire PDS c'est fini PDS moom c'est fini julli tubaab seen militants yi ñooy dugg na way PDS PDS PDS c'est fini de- dee na jeex ni c'est fini et puis ñi dee ñi dee yëpp quatre personnes yi dee ñoom bokk nañ si de ñoom bokk nañ si parce que ñi seen député yi demoon woote affaire bi booy yi génn ñi rey leen ñoom bokk nañ si de bokk nañ si buru nguur bi bu fa jege il faut ñu woo leen dëgg du yoon Sé- Sénégal di def dinañ bëgg quoi
Isa Isa yow boobu maa ngi lay nuyu naka affaire yi maa ngi si jàmm yow demoo dialogue bi ah gars yi waa panel bi yëpp dem nañ dialogue bi ñëpp dem nañ dialogue bi yow nga toog fii di waxtaan yow kese rek ah eh, da ngay réew a tës ah di la nuyu amoo ko jàmm jàmm jàmm jàmm sama mbokk saraxule bi cey Isa cey. ah di la nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay ah def noonu ba ci kanam.
bari maa leen nuyu eh bari dialogue bi feesul man maa ngi koy xool si kii bi mais même il bon dégg naa Idriss Idriss Seck finalement mujjul dem si lu ma dégg ah parce que euh, bari ku dem rek c'est fini ah opposition yi ñu bëgg laaj réew mi boo de boo dem Macky moom dafa dafa dafa dafa modi xam nga modi président bi dafa modi ku ko laal ku ko jege rek su fi modi nga quoi ku ko ku ko jege modi nga li ngay xoolal mais xoolal Idriss Seck ba mu ko jege dafa waxoon Mboro Sow élection bu ñëwee voilà li nga am su ma ko boolee dinay day jàll élection yi ñëw yi yi- deux élections yi passé yëpp municipal ak député yi boum ah ak maire Médina bi élection euh, député boum ah ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Macky dafa modi c'est fini ku ko jege rek ya- yàq nga yàqet kuy dem na demal mais man c'est maa ngi koy xool la mais bëriwul la fesu ay coow bu bëri quoi ay ay ay kenn du dégg du la bëggee. bëri bëri xaw lu ma la wax mu ngi nii da nga sànni jóge lu mu wax de da nga sànni jóge ku dem yàqu nga yàqet
waaw Isa Isa maa lay nuyu Euh, lii nag moom dafa ñaaw quoi fii moom ay màggetum xolal ay màggetum seytaane rek laa fi gis ñu naan ay religieux ñii les traîtres de la république groupe nit ñi ñii ñoo ñu bëgg a ñii ñoo bëgg a noot 18 millions de sénégalais ñii groupe bii toog ñii ñii waaw yow lii kay masal musiba naaru daal man daal ah bu fi duggee dañ xam ba xam nit la wala du nit man kay nañ ko déglu rek xool lu muy wax woote nga ñëwoo boo ñëwee naan da ngay jaay nit ñi da nga am tey tey rek lañ war a xam ba xam dañu war a xeex ak Macky Sall wala duñu xeex ak moom tey la ñuy xam waaw ba xam moom moo moom réew mi wala moomul réew mi waaw tey lañ koy xam tey la lépp di leer parce que dafa woote ñii na ko demuñu dañoo bëgg a dem élection nekkuñu di waxtaan waaw tey nag la ñuy xam ba xam moom moo moom réew mi wala moomul réew mi tey lay leer tey tey kay dina leer nañ
bari su nga de li ma la wax su nga li ma la wax ay waayo ñii ñii ñii ñoo ñoo ñoo ñu taral quoi màgget yi du leen war a rey sax c'est mieux quoi ñii bu leen reyee sax est ce que di nga am bàkkaar parce que ñoo xam ne 17 000 sénégalais 18 000 sénégalais nga xañ non c'est c'est eh waaw ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di déglu de toute façon obligé léegi mu mu teg ah mu il faut mu wax bu jegee tey ak suba il faut mu wax ñu déglu ko li ñuy wax bu bu bu waxee ba pare bu fekkee ne waxul sénégalais si palais bi la nga koy fekk tegal ndayam foofu maa ngi jégalu quoi c'est pas c'est c'est n'importe quoi wala démb rek ah démb tey dina waroon xëy ñu xam kan mooy suñu président tey suba ah ñu xëy ne ah kii de fal na ah ok maa ngi jégalu quoi franchement saaga
comme soxna Adja ni koy wax ridicule soxna Adja moo ko mën a wax ridicule il est ridicule
waa grand xanaa lii ñaari tonnes la paa bu nekk 500 kilos bu bu muy un tonne
asalaamaaleykum allo rajo Dakar man la sa grand boubou borom grand grand boubou yi ngande yi kay franchement ñi ñoo ñoo ñoo ñoo borom grand du se borom grand boubou yi nga- ngande yi ñoo ñu yàq ñoo yàq Sénégal quoi ñoo ko jël bu si- bu doon xool sax bëgguma leen sax xool quoi.
allo asalaamaaleykum wa rahmatulah famille bi maa ngi leen di nuyu waaw di leen siyaar bu wér a wér waaw bari maa ngi lay nuyu ma damay déglu ba yàgg si fii ngay discuter ak euh, ak grand Issa Al Euh, di nuyu kii bi maa ngi lay nuyu di nuyu Ibu waaw defe naa ñooñu ñoo fi jox quoi eh euh, waaw xam naa nuyu bi dama koy jël rek teg ko sa loxo quoi nga joxal ma ko xam nga waa forum bi quoi mais man dafa am benn question bu ma lay laaj quoi xam nga. Euh, lii may wax ni nag en fait euh, euh, question la boo xamante ne ça mérite d'être posé quoi mooy ne léegi Macky bu fekkente ne par exemple en fait euh, démissionné na bon ñëpp dañu ne Macky moo ni fi toog au-delà de de deux. bon en fait euh, d'après li ñu li ñu prévoir quoi mooy que ne balaa muy dem il faut que mu ñëw en fait am ko mu defal passation de service léegi kooku Macky di defal passation de service euh, kan lay war a doon ki nga xamante ne moom mooy le président de l'Assemblée nationale loolu la ñu wax quoi am na ñuy wax sax naan premier ministre Amadou Ba mais je ne pense pas mais defe naa en fait que li loi bi wax quoi mooy le premier le le kii te kooku dafa war a organiser des élections en fait dans les plus brefs délais maanaam entre trente jours ak quatre-vingt-dix jours maanaam entre un mois ak ak trois mois mais bu fekkente ne bu fekkente ne euh, ki nga xamante ne moom mooy ñëw pour pour en fait pour pour organiser élection mais processus bi la ñuy tëggaat. maanaam ñi nga xamante ne ñi- les recalés ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàll ñooñu ñëpp est-ce que comprendre nga affaire bi day tàbbi géej léegi dañuy reprendre at processus bu bees xaw ma ndax comprendre li may wax quoi loolu laa leen laa leen laa leen naa ko laaj quoi bu fekkente ne am na ku ci mën a tontu quoi xam nga mu dimbali ma. parce que gars yi bu ñu demee bu en fait bu Macky demee bu Macky defee passation de service ak qui que ce soit te élection amul ça veut dire que en fait euh, tout sera en fait tout tout tout est tombé à l'eau ñoom en fait dix dix neuf personnes yi nga xamante ne en fait ñoom ñoo war a dem en fait lépp dañ koy reprendre lépp dañ koy reprendre quoi.
asalaamaaleykum waa forum rajo Allo Dakar waa man la Ndeye de Thiam waa bari maa ngi lay nuyu yow laa seen ci buntu bi mbay di nuyu ñëpp di ziar ñëpp mbay conseil constitutionnel li mu wax dara mënu koo didi Macky si fini julli tubaab même tey bu bu dàqoon conseil constitutionnel sax ji nga 19 candidats yi ñooy dem Macky bu démissionné président assemblée mooy ñëw eggali processus bi mu jeex tàkk ñu euh, jàpp date def élection yi Macky bu jeexalee le 2 bu fekkee ne deuxième tour dafa am ñu def deuxième tour bi ñu ñaalalanteeg ñoom Macky c'est fini julli tubaab jeex na bu leen fi toog sax di xalaat nan te tas éleg loolu munul ne ñi 19 candidats yi dara mënul li leen dindi même bu leen dàqoon tey ñoom ñooy dem élection kenn mënu leen dindi mu euh, mu démissionné ak mu xaar ba le deux rek yëpp a ci lem c'est fini jeex na Macky dafay le deux pare na ci à moins que mu toog le deuxième tour am mu wa- war a teg une semaine deux semaines loolu du déglul Boubacar Diop expliqué na ko tey ci RFM soo bëggee ma envoyé la ko jeex na Macky yi bënatul dara ci yëf yi moo déggoo boo dégloo conférence am xam ne nee na ñu ñëw sax munuñ ci processus bi dara moom de suba sax gëwuma nu mu gis ndax ni mu waxee maanaam na seen ñëw amul njëriñ parce que fallait que 19 yi ñëw Macky c'est fini Macky tey même bu dàkkoon conseil constitutionnel sax décision bi xasa dem ba pare mooy continuer 19 yi dara dara dara dara Macky mënatul tëggaat yeneen élection ah kon kay mun yow tam mbay loolu boo koy xalaat sax xam ne kon kon président bi ñëw def ni Macky kon toog fi éternellement suñu suñu- bu ñu jëlee ay candidat nga ne déedéet def say pexe comme ni Macky def loolu loolu conseil constitutionnel loolu danger la ci réew sax loolu kenn bu ko kenn xalaat ni 19 yi di dem ñooy ñooy dem par A ou B tey bu décideroon tey conseil constitutionnel dàq leen ñoom ñëpp du tere ñoom valider nañ leen ba pare ñoom ñooy dem Macky mun na tuy ci yëf yi dara bañ na ko ba nee na moom la deux jeexal na mun na am sax élection yi du ko fi fekk léegi maam Diop pooy ñëw bu maam Diop ñëwee ak assemblée euh, conseil constitutionnel ñoo koy installé mu ñu ñu ñu programmer datu élection yi ñu def élection yi ki yàlla tànn mu toog jeex na mais Macky Sall c'est fini ma décret bii muy gi- euh, war a def nee na conseil des ministres mercredi nii pour ñu voter ko assemblée pour mu amnistie 2021 ba 2024 est-ce que pas PDS dinañ ko voter est-ce que dina am majorité bi parce que ñoom du ñu wax naan Ousmane Sonko la ñuy bëgg a génne ak Jomaay te ñoom nee nañ Jomaay ak Ousmane Sonko arrangé wu leen est-ce que Macky foofu tam dina fa am chance pour mun leen pour pour loi amnistie bi jàll waaw c'est une question Macky Sall fi mu ne nii kay moom il est dos au mur fi mu ne nii c'est fini dafa jaaxle boo gisee ni mu doon wax xam ne dafa mer.
waaw asalaamaaleykum waa rajo Dakar maa ngi ziar kulu cat ba cat lu ko grand maanaa de Paris mais bari mais gisuma la ci guddi bi la mais naka moom Macky Sall jël na date wala nu mu fa demee noonu wala dañ nekk seen faux dialogue bi ba léegi.
wasalaamaaleykum na ngeen def waa rajo Allo Dakar maa ngi leen di nuyu Eh, dama doon eh, baal leen ma di ëpp fatigué door a nelaw démb dama liggéey guddi donc eh, vraiment et heureusement sax parce que toog di xool eh, comment dirais-je encore ce pseudo dialogue la xaw ma tànn biir la xaw ma dialogue mais xam nga man lan moo ma jaaxal vraiment vraiment Sénégal le ridicule ne tue pas Mais imaginez lii comme genre wu, euh, les pièces du Moyen Âge là lii li pièces yu yàgg yooyu ay li- li- je- te- te- mais Macky seetlu leen Macky Macky dafa vieillir d'un coup newi bopp bi boo gisee ñuul li boobu ñu ko defar diwal ko nag pour tàllal leel bi parce que gis nga kii li muy yanu xamu ko sax xamu ko sax ndeysaan il veut pas montrer son vrai euh, truc état d'es- état physique bi mu toll léegi ñu la nëbb diw ndeysaan ba oh là là kii man man- et puis man dama jaaxle man ah sama directeur de campagne bi grand boubou yi am na ci koo xam ne maa ngi ko gis ci seen kii mu ne de de dialogue des xaw ma lan dialogue des barres yu laa gis photo bi te te te te te ridicule ne tue pas non Sénégal du dem de en tout cas man maa ngi nelaw yu war
waa salaamaaleykum waa Allo Dakar nii naa ñëpp nag macha allah di wax yaa Adja maa ngi lay wax salaamaaleykum ah kii mooy euh, Serigne Gambia Papi namoon naa la lu ko bàttali mooy que je dis tout le monde bonjour salaamaaleykum bonsoir ba pare di wax ni que non man damaa déglu waa jàngu bi waa ji il paraît que Tine la sant dama ne nee non non non nekkete ñun ñun ñun ay waay ay waay ñun lan moo ñu dal ñun ñun jullit yi lan moo ñu dal waaye ñuy def lii ak borom grand bu buy ponkal yi ñu ñëw toog jàkkaarloo nit ñi for nothing about waxuñu fi dara loo xamante ne sénégalais yi mën nañ koo dégg lu dul waa jàngu bi. ay waay li gàcc fu ñu koy waxi ji ay waay li gàcc fu ñu koy waxi ji ay waay li gàcc fu ñu koy waxi ji ah c'est triste. Ndeye Aïda yaa ngi laajte ba xam ndax euh, suba Macky Sall dina ñëw man tam maa ngi koy posé question parce que tey moom déception la fiasco la tey moom vraiment dara baaxul quoi liñ fa jëlee Macky Sall li gënalu ko moo tax international bi xam nañ lu xew ndax dinañu candidat yi bokk ci élection bi yëpp kenn ñëwul soo léegi la- waaye ñuy continuer émission kii bii seen dialogue bi lii lii si- lii c'est du nonsense waay
waa asalaamaaleykum waa rajo la Dakar di ziar ku lu cet ba cet soxna Adja Ndiaye ñu ngi lay ziar yaa ngi nelawi nappalikul bu baax waa Dia Soda grand papi Sénégambia ma maa la ñuy ziar mais di ziar ku lu cet ba cet mais Macky bàyyi na loxoom nag quoi tu vois parce que non franchement c'est vraiment dommage quoi c'est vraiment dommage kenn xamul lii théâtre la parce que Macky da doon lido ñu jàpp ko ci lido bi quatre pions yëpp la ñu jàpp mënul ome parce que lii dafa ñaaw li xew tey gars yi bàyyi la ak sa dialogue nga dem woo Massamba woo Paate woo Birane non yaram daw na yax ya des waaw na ngeen def waa rajo Allo Dakar fenkat yi yi nga yi yi- léegi def mu nekk xam nañ ne le- seen seen dernier chèque moom la ñuy jéem a seet ndax dinañ ko jot ah waaye seen waa ji di joxe tur chèque wax na leen li mu leen di wax ay Sénégalais ñoo ñeme yàlla loo xëy ñu naan église bi naan église bi dañu gëm dañu gëm ci li ñu nekk xam nañ ne ay fen jaru ko fi jeex na ba pare xam naa seen grand boubou yi war nañ ko sax di rus ci sol ci dëkk boo xam ne nit ñaa ngi dugg ci gaal yi di dee grand boubou yoo xam ne ay millions lay jeex ñu sol ko mel na ay scarecrow épouvantail kenn xamul lu ñu nurul vraiment c'est c'est c'est trop daal doy na waar xooloon ma sa menteur la ki ndeysaan ñi moom dañ leen fayoon rek pour ñuy fen di fen di fen sonko am naa sonko moom sonko moom nekkoon na ku leen doon indil xaalis waaye c'est fini de mu nekk bu ñëwee boo ñu dem dem liggéey ji chum
soxna ya ñu ngi lay nuyu yow tey da nga kii da nga da nga lit ah naka affaire yi ah sa waa ji mi ngi capitulé de mi ngi capitulé de désintéressement intéressé nee na xaaral ana vidéo bi sax xaaral ma dugalal la vidéo bi nga dégg ko ci conclusion bi lu mu wax kii dafa yem nit ñi Eh, dafa yem nit ñi. nee na day dem conseil constitutionnel ñu joxe avis waaw léegi bu conseil constitutionnel waxee mu ne ko moom le deux mu woo ko koy remplacer ñu jox ko lenge yi quoi kuy assurer transition bi waaw mais dañu war a xool intérêt de la nation kii kii dafa yem nit ñi dafa yem nit ñi dilatoire rek la fi nekkee nee na quatre vingt jours quoi entre décret bi ak élection yi quatre vingt jours quatre vingt jours quatre vingt jours bu paree bu paree mercredi jeudi le premier ah maanaam mois de mars bi yëpp trente et un jours la ah avril bi soixante jours euh, ba fin mai waaw nee na ay xaw ma la nag daakaa bi kii dafa yem nit ñi déglu ko rek soxna yaa man damoo waaru man ma gisal dama technique fu mu toll nii dafa commencé dof léegi dafa commencé dof fu mu toll nii fu mu toll nii moom boobu dara nekkatu si nee na nañ génnee Sonko Sonko remplacé ko quoi nee na loolu ak la ñuy jéem a wax ci mig magam yi yëpp it's too late man it's too late ah dëggam dëggam chrétien yi sax ñu ngi lay woo naa la baal li nga def chaleur ruslu na ah mais c'est une défaite tamit de la de nos religieux de ñu naan ay sëriñ ak ay lii ak yi c'est leur défaite de mu ndax nangu ñu toog wax ak Macky Sall waxu dëgg toog di ko fen rek li Cheikh Anne wax la rek dafa li ko merloo mooy mu toog di gis les mêmes têtes ñu nga woote dëkk jiite dëkk nga woote kenn du ñëw waaw xam na yow torox nga alku nga ay Macky Sall ouais, Macky Sall il était une fois Macky Sall Ah, ok soxna Dia, ci kanam.
non bari na la def bi laay dama jàpp tey et puis dama liggéey guddi nag sonn ñëw nag tëdd bëgg nelaw bëgg xool ci kii bi forum bi man forum bi rek laay xoolee fi laay xoolee sax lii xew Macky Sall du ma ko déglu mais bi ma bu may xool nag kii yi danga may euh, xam ne réaction yi mais benn bi moom am na buñ may yónnee mu ne moom euh, de fekk élection sax intéressé wu ko ou bien def élection mais donc c'est-à-dire Macky fi mu ne cap waxuma la capituler mais il est en train de de de Jou, il est tombé par il marche sur la tête ñu bari lii dafa garaaw dafa c'est-à-dire ñun comment on en est arrivé à ce point man daal xaw ma lii lan la bari man dama jaaxle ci dëkk bi te te te te te
soxna ya kii daal rëkkiyam lay déglu fu mu doon nii rëkkiyam essay rëkkiyam lay gi- déglu non xamoon na ne fii lay mujjee xamoon na ko waaw essay nee na day amnistie quoi pour pour pour assurer ses arrières c'est trop tard c'est trop tard waaw c'est trop tard dañu bëggoon dañu bëggoon dañu bëggoon créer ay abri provisoire sàcc élection yi far yàlla nag gars yi sondage ne ko par A ou B ga- Diomaye day gagné looloo tax mu mu def li mu def waaye dina ko coûter cher yow dialogue nga ñëw indi fa ay ay marionnette ay xaw ma ay marionnette xaw ma ay loo woon la mu koo yërëm quoi koo yërëm parce que moom yat bi dina ko dal force force yat bi dina ko dal waaw li muy ragal dina am parce que waa Pastef fi dégg naa ne nañ duñu duñu voté kii bi euh, duñu voté amnistie bi bu ñu votéwul amnistie bi defe naa daal est ce que du ñëw naan day indi armée moom moom xam nga dafa tof tous les moyens sont bons waaye bàyyi ko rek du fi toog de après le deux moom dina fi jógee dafa yeb nit ñi bàyyi ko foofu waaw ay conseil constitutionnel Eh, mais nag bari boo xoolee màkk yi bu baax nii approche na photo bi rek xool ko bu baax a baax il est complètement nekk sonn na moom top top top top il dort plus il dort plus il a pris un coup bu ñu lalul woon moom xam naa ne fi mu ne moom moo ma gën a weex ay requiem la yaa ngi may fàttali benn film sax vrai requiem requiem mu musique classique lay def te waaye bi du musique classique bu sende requiem bi muy def nii moom gla c'est le glas maa ngi dégg xam nga ban musique nga fi tegoon muy def si sonne le glas ma ne glas bi de ça sonne pour Macky Sall
ay sala yaa dina ma rey quoi en tout cas de en tout cas de moom il ne même pas il ne peut même pas cacher sa colère il ne peut même pas parler avec les gens sans les menacer sans menacer sans mettre quelque chose qui montre qu'il a peur ou bien ou bien qu'il a perdu non mu ngi koy rëkkeem lay lay woyal boppam fi mu toll nii Mozart ay sama yaa man kii dama pare si moom bàyyi ko foofu rek bëgg a dem bañ a dem di nga dem force
waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum nuyu ñëpp siyaare ñëpp ñaanal ñëpp jàmm si suba si seen ah, Bari maa ngi lay nuyu di la siyaar Bari info Bari ya Bari ba mais Bari yow est-ce que duñ la jox ah affaire yi sax nga téye nga téye forum bi quoi parce que yaa fi ne de dëgg neexul yaa fi ne booy mosku maa ngi lay siyaar bu wér di rafetlu liggéey bi info yeeg audio yi vraiment maa ngi lay ñu ngi lay siyaar bu wér laay yal mbin laay maa ngi lay siyaar bu wér mais laay da ngaa raara Abdoulaye Diakité borom ñaan yi ñu ngi lay nuyu di la siyaar yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp yaa sole la patriote lay siyaar yow it l'infatigable yaa ak booy mosku yéen a fi ne ak yaa xajaa nuyu gars yi yëpp Pape Diop Fourier les analystes Papis Xayra Lao maa ngi lay nuyu Imam Malick jaamu yàlla maa ngi lay nuyu di la siyaar Jibi ak sa mbokk Sénégambia Ibrahima Diouf yaraafu New York maa ngi lay nuyu Mbay Mbay Mbay borom aaye Mbay yow tamit l'infatigable borom aaye maa ngi lay siyaar yow it bu wér Euh, Grand Cham ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu wér mais maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp mais bari mais mais mais mais Macky Sall mais Macky Sall ña- ñaata yoon ñaata yoon la tàggoo quoi jusqu'à présent ba mu ba mu ne du du bàyyi réew mi ak léegi ñaata yoon la tàggoo ak ñaata yoon la wax ne bëggatuma ak damaa doyal ak ñaata yoon la ko wax quoi non quel quel enfant kii xale la ndakate ah waa ji waa ji mentalité am puusul de ngóor si ndafa ndafa mentalité am dafa tuuti trop billaay walaay man mii de bu nit di waxee rek ma xam ne kii lu mu métti métti dinaa xam ndax kii li muy wax raisonnable na wala déet waaw mais nag néew ma maa ko ëpp xel waaye nag xelam tuuti na trop ndafa ndafa xelam tuuti na ba mel ni sama bos bi vraiment ca ta ta ta ta bëggatuma pare naa damay dem damay dem tàggoo naa damay dem Macky Sall de Macky Sall de xoola bu subaa deuxième jour dialogue bi dina dina tàggoowaat damay dem bugguma te te te te quel doomu aadama yàlla yàlla tàggale keeg kii ah waay waay waay li muy wax yàlla doon dëgg waay ne dafa doyal bëggatuma bëggul fekkee élection yi ndok soxlawuñ la ndok yaa les institutions ndok laa la wax demal waay yow déconnecté demal demal fële ci Antarctique nga xam ne connexion sax doo ko am nga toog foofu waay yow xam waay ah, kii sonal nañu quoi vraiment li ñuy jaay ne daal ah, li ñuy jaay daal ah, amul quoi waa ji li muy jaay amul réew na waaw mag bu réew la nag vraiment mag bu réew mooy kii mooy Macky Sall mag bu réew mooy Macky Sall ngeen jégal ma ci kàddu yi parce que dafa réew ñëpp xam ngeen ne Macky Sall dafa réew waaw Macky Sall dafa réew dafa réew wala mu dof te ni yaaxa yaa di wax dëgg la Macky Sall dafa dof waaw dund ma ak moom nag mais nag à travers ses comportements ca- dëgg neexul quoi da ngay xam ne kii euh, léppam delluwul wala dafa sonn wala dafa sonn affaire bi daf ko sonal instant bi waaw nit ñi mu rey dafa dafa dañ ko traumatiser waaw dafa rey ay bakkan dañ ko traumatiser ngir intérêt personnel am rek ngir faagagal benn opposition rek ngir bëgg a am beneen mandat rek dafa dafa dafa rey ay nit ay nit la rey quoi nit loo xam ne ay nit bakkan Macky Sall euh, il est fou vraiment maa ngi leen di nuyu di leen jaar ngeen yendu si jàmm.
asalaamaaleykum alors rajo Dakar maa ngi nuyu yëpp Pape Daouda yow laa fekk ci bunt bi ñu ren nuyu joxoon ma ko frère et sœur yi quoi ñu ko ngam ku ñi amu jëm waa ko koro mu ko ku ñu ndagu ta nak ni frère ni ko sœur ni ko aax yaxuru aax yugo ani ko ku ñu ndaw loolu passé euh, Pape Daouda man affaire bi man seetaan ma ko démb quoi man seet dama xool seet naa ko nii rek bu gars yi commencé ñëw surtout et puis après euh, fekk maa ngi wax yo kii ba bir bëriwul not noonu loolaa doon wax kii quoi comment ça s'appelle euh, Boy Moscou après laa ko sàppe ko quoi sa saaña borom grand boobu yi ñaf nday mi maa ngi jégalu ko saag yi ñoo ñoo ñoo yàq suñu réew quoi paa yi ñoo yàq suñu réew boo gisee gome ñu ay ay ñii tekkuñu fukkin yàq réew mi lekk as xaalis réew mi maa ngi jégalu saag bi quoi paa yi ñii borom bax yi non ñii ñii ñii ñii duñ ay nit ñi duñ ay ay jaam na rek ay jaam nañu quoi xamuñu dara tekkuñu dara ah Khalifa Niass Ahmed Khalifa Niass di wax man 2027 kii kii kii kii moo gën a kii moo gën a moo kii dafa modi quoi dafa ñàkk fayda mag bu ñàkk fayda la kii bu nekk sama papa billaay dama koy rey di leen bëggee Pape Daouda nit dina yi nekk foofu seen yaram war na daw de seen njàng comme zéro chrétien bi moo moo taxaw foofu wax leen dëgg ah ñi nekk foofu ak seen baxay koppati ni nit yi dina nit yi saytaan wi ah xool kooku li mu wax rek si nit ñi ñëpp te ñoom ñëpp nit dina ñëpp teg foofu asal laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah astafurlah astafurlah fekk nag da ngeen di duul ay duulkat lañ ñoo fi nekk ay fenkat rek ñoo fa nekk dilli ay dilli rek chrétien bi moo tax mu ne li li leen waa yu wax ci wo- jàppale bés waxuñu dara wax leen si dara fii waxuñu dara kooku moo tax wax mu wax président dëgg ah paa yaa ngi foofu di wax ay seytaane di wax ay deux mille vingt sept ah report ñàkk fayda boolu puy de ku Allah ta barke ron xay quoi xay naa xa xal ko Allah naa xa xal ko quoi yàlla yàlla al ko ñoom ñëpp nit diine yi nekk foofu ñëpp ñu fi nekkoon ñëpp sauf chrétien bi ki doon ku ko ku ku ko wax dëgg bi seytaan yi
waaw beneen salaamaaleykum waa rajo Dakar di ziar kóolu ceeb ba ceeb grand Issa mu jëm Baye Daouda gis nga boo fi jaayee ginaar ba mu nekk di mbëkke billaahi bu fi loot fi damee nga xam bari dafa yor tuus bari naka moom Mbaye Lambe maa ngi lay ziar bu baax laay suma laay soxna Ayda di ziar Dia Sone di ziar Adja laay suma laay maa ngi ziar kóolu ceeb ba ceeb.
waaw grand Issa amoxo maa ngi lay ziar amu jëm lu ko ñàkk amoxo Ibrahima maa ngi lay nuyu laay mais grand Issa laay Sarr am na audio bu mu fi waxoon de nee na Sénégal à partir de 9 ans à partir de 9 ans ngay bàyyi ñu dund ñi nekk ci waay 10 ans ba jëm ci kaw yëpp nga faxas ñëpp compreso paa yi nag nga boole ci paa yi na paa yi moom fa ngay njëkk a tàmbalee moom parce que la nekk ci kaw a gën a bon la nekk ca kaw moo gën a yàqu wàcc ci suuf waaw li ngay gën a wàcc nag ngay dem ba ju- ba ñu am 10 ans 12 ans yi sax mën nga leen bàyyi ñu dund waaye 30 ans jëm kaw moom ah laay non 9 ans dafa laay laay laay 9 ans dafa xaw a kii daal 9 ans dafa tuuti def ko 15 ans xam nga ñi nekk 15 ans 20 ans yi nga bàyyi leen ñu dund quoi moom kay laay jëmal ci kaw rek jëmal 50 ba 60 rek laay faxasal ñëpp.
Pape Daouda Pape Daouda maa lay zaare Louga di lay zaare Pape Daouda xam nga waa yi chrétien bi léegi laa si déglu kii yow léegi laa déglu discours am bi quoi c'est que Macky Fa- Macky Sall li mu doon funke pop pop pop pop dafa funki funki bo- pop pop pop et puis waa ji waa ji dafa la laal li gàcce la oui qu'est-ce qu'il y a ok j'arrive gis nga dafa funki funki funki et puis nit yi diine yi ne foofu sax gàcce la paa yi foofu gàcce la ñii xaj rek moo leen gën quoi gàcce la ñu toog foofu ñëpp ay ay ay nit yi diine lañ yàlla yàlla daf leen daf leen weer yàlla daf leen daf leen daf leen daf leen daf leen weer foofu quoi alku leen ah kii nit yi yéen ñi nekk nit yi diine ah war a war a dellu ñu nii si si si si yàlla bu ñu defee erreur kii wala ñëw ñëw gàddi gàdd sa ñàkk fayda amuleen benn fulla
allo asalaamaaleykum wa rahmatulah famille forum Walo Dakar maa ngi leen di nuyu ci suba gi ci talaata ji di leen jox seen wàccuwaay eh Mr Barry Barry maa ngi lay nuyu waaye gis nga de démb de maa ngi lay wax naan la dinaa la contacter mais démb dama xaw a yéex a wàcc quoi maa ngi wàcc une heure et demie une heure et demie quoi du matin waaw heure boobu moom heure boobu moom boo wàccee moom doo tal leen da ngay julli dem tëddi quoi gis nga de maa ngi nii di doog a di doog a yeewu quoi xam nga war a xëy tegaat ko ci mais maa ngi lay nuyu di la siyaare waaw di nuyu eh, soxna Awa maa ngi lay nuyu di nuyu Issa Diarra yaa Hadja maa ngi lay nuyu lukku lukku lukku maa ngi lay nuyu Forum Civil di nuyu Ibrahima Diouf de Sénégambian maa ngi lay nuyu di nuyu eh, El Hadj Ablaye Sarr maa ngi lay siyaare bu wér a wér a wér Mouhamadou Bàccali alors yaa ngi enjoy si Sénégal yaa ngi jaamu yàlla waaw di leen nuyu di nuyu soxna Soda di- waaw waaw defe naa ñooñu laa fekk ci buntu bi quoi xam naa bari da may jël di nuyoo bi rek joxal ma ko Pape Daouda xam nga mu yégalal ma ko quoi
salaamaaleykum Bakar Sereer Bakar Bawol Bawol Bakar Endu eh, siyaar na leen waay ci lu ngeen ne ci lu ngeen ne maa wopp leen maa xool yaa ngi feex am na ku yàlla ay mbugal fii mu ne de wax na ko démb sax ma sonn daw rek laa bëgg dafa sonn daw rek laa bëgg ma ne ko waa gisagoo dara wallahi dem bëgg a dem taxaw la bëgg a bëgg a dem duus te savoo ah waay taxaw nga pop xam nga day de waaye bëgg a dem dus te paw taxaw te sosoo sa waay seere seere seere seere seere nag moo am de ay laa ay laa bëgg a day te mënta day caay ba gaa yi ko fi waxoon de go round kam round de mbugal gi noo ko commencé woon dina ñëw ci yow nu may def Ablaye Mbaye dana nan lay def nan laay def nu may def xaw ma nu may def tëtëtëtëtë man xaw ma damay toog ci réew mi continue waaye problème bi mooy nu may def ak waa Sénégal ñii bu ma leen fitnaalee ndax àdduna bi duñ may xoole ndax man mën naa fee toog waaye su ma poussé élection yi man lan moo ma ci fekk su ma dawee bay réew mi lan gan gàccee ma ci topp ay way sama ndey man ndax duñ ma coup d'état duñ xëy nit dal sama kaw nangu nguur gi boobaa est-ce que dina ma bàyyi ma dem nu may def nan laay def man ñii bu ma leen forcé def leen li ma bëggal reyaat di continuer reyaat nu ma internet nu àdduna bi duñ may xoole ban bët lañ ma xool li yàqu yàqu na pare ay waaye tey maa freiné affaire yi daw ba nguur gi man damaa war a taxaw fii rek daw ba affaire ba affaire yi daw non du demee noonu de daw doo daw de ba kay toogal rek lii laa la waxoon ojoy ko yor na ko génnewaat lii nga dog di nga ko rëccu te giñ naa ko nee naa ko billaahi wallaahi tallaahi boo guddee fan lii di nga ko rëccu bu doon démb doo ko defaat di nga ko defee nu gën a yomb dem dem gu neex gu yomb daa duna tamit am fi alal yor fi xaalis yori kër chaque jour damay jël ci narko yi nekk Amérique latine bi rek groupe yooyu noonu sa waay lépp la ñuy yor mais dañuy dem ba duñ xam nu ñuy def dañuy yor alal joo xam ne sa waay dañ ciy bëgg a dund nag mais après duñ mën a daw bàyyi affaire yi dañuy dem ba xoolal jigéen ñi ci kun jigéen juñ bëgg maanaam seen kër day nekk comme hôtel coggalug jigéen ne fa kun bëgg tëdd la sa waay yor alal ju dul jeex sa yor alal jurul jeex yor xoolal ay ay ay bërigoy dollar ay pantre dollar ay pantre nar koy nekk Amérique latine bi ay pantre dollar lay yor kun bëgg a rey rey la noonu bu ñu am rey mais gis nga bu mbir yi demee bay jeex ba ngay daanu sa waay foo léppay réer waxoon naa ko fii ci ñuy siiw ñi rek nga moo tax yi lépp sunu borom la su ma ko waxee nag jibbi si naan ma boo jaaxlee tudd yàlla ma ne ko noo du caaxaan yàlla ci gëm fi nga koy gëmee mooy fee ñu bëri boo waxee ñu ne gëmuñu yàlla waaye fee laa gëm njeexit ay njeexit gis nga mu nekk woykat fubalkat théâtre kat gis nga yàlla bu lay taal ba àdduna bi yëpp di la xam wala alal ak lépp ci fee yi doomu aadama yi rek ngay xamee ne sunu borom existé na fi fee yi ngay xool da ngay gis koo xam ne xoolal ba muy commencé yorul ñaari dërëm lu mu def mu neex ñi siiw am xaalis lu mu def ex amul expérience amul xam-xam lu mu def mu neex nit ñi lu mu wax mu neex nit ñi lu mu def nga dem nag ba yor alal am expérience miin affaire yi loo def du neex kenn loo def du dox loo jaay du dox nga yor alal yor xaalis gën a yeewu gën a xam bunt bi gën a xam yoon wi waaye loo def du neex kenn ku weddi laajal Youssou Ndour ba muy commencé ak léegi fi mu nekk Youssou Ndour lu ne la jéem a def am na alal téen réew mi yor alal jurut jeex mais yu mu ne nii safut kenn saf fi na ci nit ñi safut kenn xanaa ñi nga xam ne dañoo far ci Macky Sall ñoom moom luy sundul wax neex na leen donte li muy wax waaye fi mu ne nii loox du neex dugg leen Amérique lépp temps la booy commencé ñëpp lay bëgg mais boo demee ba yàlla rocc la newoon ci yow léppay dem am am tam noonu la al ma jël ko sama bopp ay gént la nag damay théâtre rek xaw ma damaa géntan mos naa am alal waaye may ëpp alal ci àdduna bi gént la nag yaakaar na dama koo géntan nag waaye ma ëpp alal ci àdduna bi man ëpp ñëpp xaalis yor alal ju dul jeex day yàq jigéen ñi wër ma may noos ñi ma bëgg a tëj ma tëj leen ñi ma bëgg a dóor ma dóor leen ku ma tooñ ma tëj la waaye di dóor di rey di tëdd jigéen xale yi ndaw yi di def lu ma neex waaye ba alal yàlla rocc sama alal yi ngooñ laa mujj di jaay après ma daaw ñëw Argentine gént la nag waaye mën naa am tam dëgg la ma daw Modou ji Argentine dama daanu waaye ma torox torox laa def te noonu def naa ko nag doonoon VIP ñoom jibi si ma nungu seen gel yi gars yi ñoom ñoom it Maodo Mandela ay Laay Sarr amoon i gel ma nungu ko di def li ma neex ku ma nob du ma rivali kenn di may ay oto di may xaalis di may ay appartement mais ba ma daanoo waaye yoratuma sax la suukar màdd ma daw nag après ma daw immigré ngooñ laa mujj di jaay ma daw immigré nag daw ñëw Argentine di jaay di moodu moodu di moodu moodu saa yor alal jurul jeex yor xolal ay ay ay bërigoy dollar ay pantre dollar ay pantre nar koy nekk Amérique latine bi ay pantre dollar lañ yor kun bëgg a rey rey la noonu bu ñu am rey mais gis nga bu mbir yi demee bay jeex ba ngay daanu sa waay foo léppay réer waxoon naa ko fi ci ñuy siiw ñi rek nga moo tax i lépp sunu borom la su ma ko waxee nag jibbi si naan ma boo jaaxlee tudd yàlla ma ne ko noo du caaxaan yàlla ci gëm fi nga koy gëmee mooy fee ñu bëri boo waxee ñu ne gëmuñu yàlla waaye fee laa gëm njeexit ay njeexit gis nga mu nekk woykat fubalkat théâtre kat gis nga yàlla bu lay taal ba àdduna bi yëpp di la xam wala alal ak lépp ci fee yi doomu aadama yi rek ngay xamee ne sunu borom existé na fi fee ngay xool da ngay gis koo xam ne xoolal ba muy commencé yorul ñaari dërëm lu mu def mu neex ñi siiw am xaalis lu mu def ex amul expérience amul xam-xam lu mu def mu neex nit ñi lu mu wax mu neex nit ñi lu mu def nga dem nag ba yor alal am expérience miin affaire yi loo def du neex kenn loo def du dox loo jaay du dox nga yor alal yor xaalis gën a yeewu gën a xam bunt bi gën a xam yoon wi waaye loo def du neex kenn ku wet di laajal Youssou Ndour ba muy commencé ak léegi fi mu nekk Youssou Ndour lu ne la jéem a def am na alal téye na réew mi yor alal jurut jeex mais yu mu ne nii safut kenn saf fi na ci nit ñi safut kenn xanaa ñi nga xam ne dañoo far ci Macky Sall ñoom moom lu Youssou Ndour wax neex na leen donte li muy wax waaye fi mu ne nii lu wax du neex dugg leen Amérique lépp temps la booy commencé ñëpp lay bëgg mais boo demee ba yàlla rocc la newoon ci yow léppay dem am am tam noonu la al ma jël ko sama bopp ay gént la nag damay théâtre xaw ma damaa géntoon mos naa am alal waaye ma ëpp alal ci àdduna bi gént la nag yaakaar na dama koo géntoon nag waaye ma ëpp alal ci àdduna bi man ëpp ñëpp xaalis yor alal ju dul jeex day yàq jigéen ñi wër ma may noos ñi ma bëgg a tëj ma tëj leen ñi ma bëgg a dóor ma dóor leen ku ma tooñ ma tëj la waaye di dóor di rey di tëdd jigéen xale yi ndaw yi di def lu ma neex waaye ba alal yàlla rocc sama alal yi ngooñ laa mujj di jaay après ma daaw ñëw Argentine gént la nag waaye mën naa am tam dëgg la ma daw Modou ji Argentine dama daanu waaye ma torox torox laa def te loolu def naa ko nag mu doonoon VIP ñoom jibi si ma nungu seen gel yi gars yi ñoom ñoom it Maodo Mandela ay Laay Sarr amoon i gel ma nungu ko di def li ma neex ku ma nob du ma rival kenn di may ay oto di may xaalis di may ay appartement mais ba ma daanoo waaye yoratuma sax la suukar màdd ma daw nag après ma daw immigré ngooñ laa mujj di jaay ma daw immigré nag daw ñëw Argentine di jaay di moodu moodu di moodu moodu suwaay suwaay Macky Sall daa dem ba yor alal yor réew gën a am expérience yàgg ci réew mi def lu ne foog na nit ñi dañ koy continuer bëgg waaye sa waay cëtët wéet na fan yi de wéet na wéet na wéet na waaye ñenn dañoo ko bëgg mooy juliti Sénégal yi juliti paa yi naa fekk julit yooyu noonu moo tax sa waay dëgg daal mooy dëgg ni ma mel du sensé ndax ci nit ñi laa gis sama comportement ci kaw suuf li ma wax léegi rek boo amee xel di xalaat da nga xam dëgg yi ak dëgg yi da nga da nga comprendre ngëm-ngëm yeeg diine yeeg nit ñi moon leeleew li yaay yàlla wax li yeeg yeneen bay dem ni yeeg ñu jël di la tëwareeg mën la sax rey yàlla def nii nañ def nii sam sunu diina nii nii ne nee na ni fen rek fen rek gëmunu dara benn waaye daan na ko wax ci groupe bi gëmunu dara diina yi dëgg la de waaye nit ñi ñooy fals moo tax man gëmuma tus nit ñi dañuy fals da ngay gis imam ñu ne sëriñ nangam nangam sëriñ laa wax de ñëw taxaw ci mbooloo mi nga xam ne moom moom ci bopp xam na day fen xam na ci li mu ne du dëgg waaye day taxaw rek di ko défendre day taxaw di ko défendre moo tax julliti genn wàll Sénégal yi xaaj bi yëpp dañoo am xay am gàcce buñ déggee ne chrétiens yi seen i naawle yu ne ca réew ma ñoo taxaw wax dëgg nguur ga ñoom ñu taxaw fay def yëfu naafeex taxaw di tag président bi ndax sax lu mu leen jox moo tax julliti Sénégal xaaj bi yëpp dañu ñi dañuy dañoo yéey mais ñu mel ni man moom dañuy ree dañuy xam ne xel diina ji moom butukaayu alal la léegi diina moom niñ la ko tëbëreek niñ ko def sa yuur ji moom loolu jeex na bu yàgg ci yow da ngaa bokk ci comme équipe football rek da nga koy bokk di ko supporter après jeex na mais li nga liñ defoon sa bopp bi ngay xale yooyu xam nga ne dañ na ba yàq ay fen la woon beneen yoon nañ ko def sa xel léegi nag boo bokkee ci lii na nga koy def comme équipe bu football rek da ngaa far di ko nawet di ko supporter jeex na mais comme yéen defal sa bopp bi ngay xale def la nii nii nii nga nga xooxooxoo yooyu da ngay dem ba xam ne xel ay fen la da ngay dem ba xam fen dëgg dëgg rek yàlla rek a fi ne yi ci des yëpp ay ay ay caaxaan la yi ci des ay caaxaan la da ngay dem ba comprendre ko nag léegi nag boo bokkee ci nag ab troupe moom bokk ci dara ah da nga koy supporter rek supporter ko comme ni nga bokkee ci équipe no supporter ko bu la neexee sax eh, nga supporter ko rek wax ci la loo xam ne xel yi yi nga xongu supporter ko bu la neexee sax nga ne sama jaraafa fi mon la neexee nga ne équipe nationale sénégalaise fi mon moo mon ñëpp moo gañe ñëpp ah supporter ko kooku moom ku ne am na loi bi mais boo yàggee ci àddina ci ngay comprendre jeu carte gi ci àdduna bi nga comprendre nag yeewu comprendre xam moo tax genn wala nekk Sénégal xaj dañu xay ruus ñi nga xam dañuy défendre ñi nga xam dañoo mel ni classe jibi yi ay sunu diina yoole yoole yoole mais tax xaaj yi jibi yi dañoo muñ na toog toog di seetaan ak oustaz ek ñi nga xam ne ñoom boo nekk kosoog diina ñu ñëw taxaw xaaj bi yëpp tey dañu am gàcce yeewoo nañ gàcce ndax église ba rek moo taxaw wax ci kanam Macky Sall ne ko li nga nekk nekkoo ci dëkk ñoom rek a taxaw ne nekkoo ci dëkk moo tax may jaay Casamance Gambie ay sa waay man dama dem man ba takk kurus dama xam ne ñoom rek ñoom du fenn te man ci noonu laay doxee man sama àdduna man dama man kenn du ma xob kenn du ma théorie kenn du ma wax loo xam ne nekkut fe damay ñëw ci géej gi kay nga génnew jën ne ma fii lay génne ma ne ah waa kay ay ay sa waay yéen yi non non non man lu ma gëm dama ci teg sama loxo noonu laay doxee lu ma gëm dama ci teg sama loxo du ma gëm ay nii nii nii rek ak ki xoppaate non non non doxul ma foofu doxee ma foofu man dama demee ma leen man yéen laa gëm ndax yéen a ne ci dëkk bu ngeen ma lebee fay ma bu ngeen waxee du ngeen ma wor bu ngeen waxee dëgg la waaye fii sama mbokk yi ñu naan ñooy ñoo fi gën ñoom ñooy dem àjjana ak xaw a xaw a xaw a ba tewari lépp ñu def ko sama yur ji ñoo fi dàqa fen ñoo fi dàqa tiriyan loolu nag ma tàmbali soppi ma am gi- beneen xarkan nag bu ma gis àddina bi ma gis nag beneen gis-gis ci àddina bi dem bay takkab kuru dama garaay xe bëgg nañ xeex man nangu ko xam naa ñoo ko nangu sànni ko waaye dama ko noon a takk de te booba nag booba sax gisee guma ni àdduna bi booba Gàmbi rek laa ne di jaay rek te man ci noonu laay doxee su waay su waay Macky Sall daa dem ba yor alal yor réew gën a am expérience yàgg ci réew mi def lu ne foog na nit ñi dañ koy continuer bëgg waaye sa waay cëtët wéet na fan yi de wéet na wéet na wéet na waaye ñenn dañoo ko bëgg mooy juliti Sénégal yi juliti paa yi naa fekk julit yooyu noonu moo tax sa waay dëgg daal mooy dëgg ni ma mel du sensé ndax ci nit ñi laa gis sama comportement ci kaw suuf li ma wax léegi rek boo amee xel di xalaat da nga xam dëgg yi ak dëgg yi da nga da nga comprendre ngëm-ngëm yeeg diine yeeg nit ñi moon leelew li yaay yàlla wax li yeeg yeneen bay dem ni yeeg ñu jël di la tëwareeg mën la sax rey yàlla def nii nañ def nii sam sunu diina nii ni ne ne nee na ni fen rek fen rek gëmunoo dara benn waaye daan na ko wax ci groupe bi gëmunoo dara diina yi dëgg la de waaye nit ñi ñooy fals moo tax man gëmuma tus nit ñi dañuy fals da ngay gis imam ñu ne sëriñ nangam nangam sëriñ laa wax de ñëw taxaw ci mbooloo mi nga xam ne moom moom ci bopp xam na day fen xam na ci li mu ne du dëgg waaye day taxaw rek di ko défendre day taxaw di ko défendre moo tax julliti genn wal Sénégal yi xaaj bi yëpp dañu am xay am gàcce buñ déggee ne chrétiens yi seen i naaw lay ne ca réew ma ñoo taxaw wax dëgg nguur ga ñoom ñu taxaw fay def yëfu naafeq taxaw di takk président bi ndax sax lu mu leen jox moo tax julliti Sénégal xaaj bi yëpp dañu ñi ñi dañuy dañoo yéey mais ñu mel ni man moom dañuy ree dañuy xam ne xel diina ji moom butukaayu alal la léegi dina moom niñ la ko tëbëreek niñ ko def sa yuur ji moom loolu jeex na bu yàgg ci yow da ngaa bokk ci comme équipe football rek da nga koy bokk di ko supporter après jeex na mais li nga liñ defoon sa bopp bi ngay xale yooyu xam nga ne dañ na ba yàq ay fen la woon beneen yoon nañ ko def sa xel léegi nag boo bokkee ci di na nga koy def comme équipe football rek da ngaa far di ko nawet di ko supporter jeex na mais comme yéen defal sa bopp bi ngay xale def la nii nii nii nga nga xooxooxoo yooyu da ngay dem ba xam ne xel ay fen la da ngay dem ba xam fen dëgg dëgg rek yàlla rek a fi ne yi ci des yëpp ay ay ay caaxaan la yi ci des ay caaxaan la da ngay dem ba comprendre ko nag léegi nag boo bokkee ci nag ab troupe moom bokk ci dara ah da nga koy supporter rek supporter ko comme ni nga bokkee ci équipe no supporter ko bu la neexee sax eh, nga supporter ko rek wax ci la loo xam ne xel yi yi nga xongu supporter ko bu la neexee sax nga ne sama jaraafa bi mon la neexee nga ne ni équipe nationale Sénégal fi moom moo moon ñëpp moo gañe ñëpp ah si porté ko kooku moom ku ne am na luwaa bi mais boo yàggee ci àddina ci ngay comprendre jeu carte gi ci àdduna bi nga comprendre nag yeewu comprendre xam moo tax genn wala nekk Sénégal xaj di dañu xay ruus ñi nga xam dañuy défendre ñi nga xam dañoo mel ni classe jibi yi ay sunu diina yoole yoole yoole mais tax xaaj yi jibi yi dañoo muñ na toog toog di seetaan ak oustaz ek nga xam ne ñoom boo nekk kosoog diina ñu ñëw taxaw xaaj bi yëpp tey dañu am gàcce yeewoo nañ gàcce ndax église ba rek moo taxaw wax ci kanam Macky Sall ne ko li nga nekk nekkoo ci dëkk ñoom rek a taxaw ne nekkoo ci dëkk moo tax may jaay Casamance Gambie yaay sa waay man dama dem man ba takk kurus dama xam ne ñoom rek ñoom adul fenn te man ci noonu laay doxee man sama àdduna man dama man kenn du ma xub kenn du ma théorie kenn du ma wax loo xam ne nekkut fe damay ñëw ci géej gi kay nga génnew jën ne ma fii lay génne ma ne ah waa kay ay ay sa waay yéen ñi non non non man lu ma gëm dama ci teg sama loxo noonu laay doxee lu ma gëm dama ci teg sama loxo du ma gëm ay nii nii nii rek ak i xuppaate non non non doxul ma foofu doxul ma foofu man dama demee ma leen man yéen laa gëm ndax yéen a ne ci dëkk bu ngeen ma lebee fay ma bu ngeen waxee du ngeen ma wor bu ngeen waxee dëgg la waaye fii sama mbokk yi ñu naan ñooy ñoo fi gën ñoom ñooy dem àjjana ak wax a wax a wax a wax ba tewari lépp ñu def ko sama yur ji ñoo fi dàqa fen ñoo fi dàqa tiriyan loolu nag ma tàmbali soppi ma am beneen xarkan nag ba ma gis àddina bi ma gis nag beneen gis-gis ci àddina bi dem bay takkab kuru dama garaay xe bëgg nañ xeex man nangu ko xam naa ñoo ko nangu sànni ko waaye dama ko noon a takk de te booba nag booba sax gisee guma ni àddina bi booba Gàmbi rek laa ne di jaay rek te man ci noonu laay doxee mosoo ma nit mosuma wax diw baaxul ba ma gëm na baax man kay da ngay def rek ma gis waaye ñoo fi gën te defu leen lu fi gën si waaye nu nu ma koy gëme ñun ñoo fi gën ñoo fi teg lii ñoo fi mbaxal lii ñoo fi ceeb lii ñoo fi def lii ndax nii nii nii yàllaa ko wax fii moo ko def fii moo ko def fii te defu leen dara lu gën si waay bàyyi leen ñu waay ngeen fi gënee da ngeen def lu tax ngeen gën fi wax lu tax ngeen gën fi jëf lu tax ngeen gën fi waaye sare dara lu ngeen def yëpp safaan ba la lu ngeen def au contraire la te sax su ngay bàkkoo maa fi gën maa fi gën maa fi def lii ma te say jëf dara wut ak say wax wuute sa waay nan laa lay man man doxuma ci loolu sa waay doxuma ci loolu moo tax genol yëpp waaye dañoo xëy ruus ñoom rek ñoo fi taxaw dakkarale dëkk yi de yëpp taxaw di tag président ba taxaw ci kanam wax lu ko neex pour mu lim la jox ay bu fi dem bu fi joxe réew mi te am réew sa waay ñun la yéey yow yow kat naam ab sëriñ nga wala nangam nga nga président bi nekk ci ay caaxaan nga taxaw di ko tag waaye mosoo nit mosuma wax diw baaxul ba ma gëm na baax man kay da ngay def rek ma gis waaye ñoo fi gën te defu leen lu fi gën si waaye nu nu ma koy gëme ñun ñoo fi gën ñoo fi teg lii ñoo fi mbaxal lii ñoo fi ceeb lii ñoo fi def lii ndax nii nii nii yàllaa ko wax fii moo ko def fii moo ko def fii te defu leen dara lu gën si waay bàyyi leen ñu waay ngeen fi gënee da ngeen def lu tax ngeen gën fi wax lu tax ngeen gën fi jëf lu tax ngeen gën fi waaye sare dara lu ngeen def yëpp safaan ba la lu ngeen def au contraire la te sax su ngay bàkkoo maa fi gën maa fi gën maa fi def lii ma te say jëf dara wut ak say wax wuute sa waay nan laa lay man man doxuma ci loolu sa waay doxuma ci loolu moo tax genol yëpp waaye dañoo xëy ruus ñoom rek ñoo fi taxaw dakkarale dëkk yi de yëpp taxaw di tag président ba taxaw ci kanam wax lu ko neex pour mu lim la jox ay bu fi dem bu fi joxe réew mi te am réew sa waay ñun la yéey yow yow kat naam ab sëriñ nga wala nangam nga nga président bi nekk ci ay caaxaan nga taxaw di ko tag waaye moo tax benn waaye daal na ko wax ci groupe bi xam leen bàyyi ngëm gi lu wóor la wax ba yëpp nag moo lay jox ci àddina nga nga comprendre loo gëmati teg ko sa bakkan waaye doo ko gëm nag ngir tiit wala ragal wala nang da nga koy gëm nag ngir da ngaa gëm ab équipe football comme Sénégal di ko supporter punto jeex na dama bëgg Sénégal gagné jeex na moo fi man ama am fee waaye nag du tax nag ma jël Sénégal teg ko ci bopp ñëpp déedéet Sénégal ku dul Sénégal rek dañ laa war a rey ku gëmul Sénégal dañ laa war a rey non teg ko ci kaw lan bàyyi caaxaan waaw fii rek ngay comprendre moo tax bravo église bi dëgg rek a fi ne nekk ko fekk leneen mais nag comportement bi dafa yàgg de comportement bii nii dafa yàgg ci Sénégal moo tax waaye mbir maa ngoogu en tout cas daal ma génn foofu sax ñëw ci Baye Macky Sall jeexale ko sama audio moo tax benn waaye daal nag waa ci groupe bi xam leen bàyyi ngëm gi lu wóor la wax yooyu yëpp nag moo lay jox ci àddina nga nga comprendre loo gëmati teg ko sa bakkan waaye doo ko gëm nag ngir tiit wala ragal wala nang da nga koy gëm nag ngir da ngaa gëm ab équipe football comme Sénégal di ko supporter punto jeex na dama bëgg Sénégal gagné jeex na moo fi man ama am fee waaye nag du tax nag ma jël Sénégal teg ko ci boppu ñëpp déedéet Sénégal ku dul Sénégal rek dañ laa war a rey ku gëmul Sénégal dañ laa war a rey non teg ko ci kaw lan bàyyi caaxaan waaw fii rek ngay comprendre moo tax bravo église bi dëgg rek a fi ne nekk ko fekk leneen te nag comportement bi dafa yàgg de comportement bii nii dafa yàgg ci Sénégal moo tax waaye mbir maa ngoogu en tout cas daal ma génn foofu sax ñëw ci Baye Macky Sall jeexale ko sama audio yaay jàmme Sall yaay jàmme Sall nee naa leen ba leen ko puus bu ngeen ko dimbalee mu dem dama xamul nag nu ngeen koy defee waaye yaay jàmmi sal ku ko dimbal mu dem waa ji sonn na de wallaay sonn lool sax nañu naan non waa ji daa bëri pexe daa def lii sa waa ji daa bëgg a dem wallahi ci dëgg la ne dama sonn dama doyal sëkk billahi wax na dëgg mën naa ko waat ci yàlla wax na dëgg wóor na yàlla mosuma gëm mais lu gën dëggee noonu mos daa sonn billahi wax na dëgg yaay jàmme sàll yaay jàmme sàll nee naa leen ba leen ko puus bu ngeen ko dimbalee mu dem dama xamul nag nu ngeen koy defee waaye yaay jàmmi sàll ku ko dimbal mu dem waa ji sonn na de wallaay sonn lool sax nañu naan non waa ji daa bëri pexe daa def lii sa waa ji daa bëgg a dem wallahi ci dëgg la ne dama sonn dama doyal sëkk billahi wax na dëgg mën naa ko waat ci yàlla wax na dëgg wóor na yàlla mosuma gëm mais lu gën dëggee noonu mos daa sonn billahi wax na dëgg xam nga maa ngi wax léegi ne Macky Sall lu mu wax ay fen la waaye tey moom la mën a wax mos a wax lu ma gëm dama sonn dem rek laa bëgg tey lay doog a wax lu ma gëm te ni mu leen ko waxee nii xam naa gaa yaa ngi xaar ne waa jey ñoom xoliwaat mais wallahi da ngeen di xëy du ngeen ko gis mu bàyyi réew mi dem yoonam xam naa man nag moom li ma wax dama ko gëm te lépp fi ma ko dama ko teg bu wóor bu ngeen xëyee gisu leen président bi football sans entraînement sans arbitre football sans arbitre ngeen di gis Sénégal football sans arbitre da ngeen xëy na du ngeen ko gis ñu ne dem na démissionné dem na yoonam baax na baax na toog leen foofu rek da ngeen di xëy du ngeen ko gis bu ko gaa yi dimbale wut wóor na yàlla bu ko gaa yi gis nañu xëy duñ ko gis day xëy na tër dafa sonn nam na naafeeq yi koy ñaafeeq naafeeq yi ko yi koy jege ñooñ ñooñu du leen déglootu leen ndax lii mu nekk yëpp ñoo ko ñoo ko def ay gëmal dóor ak rayal ak tëjal ak defal lii ak defal lii ak defal lii ak réew mi yaa ko moon yaa garde lii ak defal lii ak lislaama la wax lii ak yàlla la wax lii am nga droit te réew mi lu nañu teg ko ci noppam dafa dem ba gëmatu leen moo tax ku ci wax du la sax déglu dina rey nag waaye du la déglu xam nga maa ngi wax léegi ne Macky Sall lu mu wax ay fen la waaye tey moom la mën a wax mos a wax lu ma gëm dama sonn dem rek laa bëgg tey lay doog a wax lu ma gëm te ni mu leen ko waxee nii xam naa gaa yaa ngi xaar ne waa jey ñoom xoliwaat mais wallahi da ngeen di xëy du ngeen ko gis mu bàyyi réew mi dem yoonam xam naa man nag moom li ma wax dama ko gëm te lépp fi ma ko dama ko teg bu wóor bu ngeen xëyee gisu leen président bi football sans entraînement sans arbitre football sans arbitre ngeen di gis Sénégal football sans arbitre da ngeen xëy na du ngeen ko gis ñu ne dem na démissionné dem na yoonam baax na baax na toog leen foofu rek da ngeen di xëy du ngeen ko gis bu ko gaa yi dimbale wut wóor na yàlla bu ko gaa yi gis nañu xëy duñ ko gis day xëy na tër dafa sonn nam na naafeeq yi koy ñaafeeq naafeeq yi ko yi koy jege ñooñ ñooñu du leen déglootu leen ndax lii mu nekk yëpp ñoo ko ñoo ko def ay gëmal dóor ak rayal ak tëjal ak defal lii ak defal lii ak defal lii ak réew mi yaa ko mën yaa garde lii ak defal lii ak lislaam la wax lii ak yàlla la wax lii am nga droit te réew mi lu nañu teg ko ci noppam dafa dem ba gëmatu leen moo tax ku ci wax du la sax déglu dina rey nag waaye du la déglu bari na ñoo xam ne déglootu leen su waaye dem rek la bëgg ku ko dimbale mu dem nag lii moom maa leen ko dee ndax ña ko doon téye loolu yëpp dañ ko bañ ko woon gannaaw ñëpp a ko woon gannaaw ñëpp dañ koy wax sax te ñin gën a ragal nag ñin gën a ragal mooy àdduna bi ni mu demee nii gis nga sa réew mën nga leen a not de mais gis nga li nekk ci at pion international bi àdduna bi international bi ñooñu na ngay sa pro- pro- président bu am problème ñooñu sa problème ndax boo yàqee réew bay daw fa ngay jëmay sa problème te ñooñu seen intérêt ka leen ñor wax naa ko fi France wóor na yàlla da lay jaay jënd mburu da jën France sa waay mën na lay def loolu ne waaye nag bu si intérêt taxawee ku laa ko ko ko weddi laaj histoire man Nelson Mandela gis nga kii fàttali sax nga xam ne moom lañ xërtal muy rey noir yeeg lu ne mu def leen ko léegi sa affaire tàng dañ ko abandonné bàyyi ko moom kese tubaab bi dañ ko abandonné bàyyi ko moom kese ñoom noonu lañ xam tuba seen aada lool tubaab tubaab yëpp ci àddina noonu la ñuy doxee tubaab loolu la xam xamut ay ay ay ay ay ay ay ngor intérêt la xam tubaab xamut ay ngor intérêt la xam bu xoolee ne xam ne lii du ci jëlee dara da lay abandonné da lay abandonné day dem bala fa su xoolee ne lii da ciy lab da lay sacrifié wóor na yàlla du daara sacrifié la du daara ci ñoom loolu nag boo ko nandut booy boo demal gas ba mu xóot nga dugg ci mën na la jàppaloo def la lu ne def la lu ne def la lu ne bu seen intérêt nekkee lu ne ñu def la ñooy ne sa ginnaaw ñooy mais gis nga bu bu carte gi la jee ñu sacrifié la bu wóor na yàlla muy carte gi la ñu lay sacrifié seen intérêt rek leen ñor loolu nag kooku xamul ci àdduna bi booy ba gas bu mu xóot nga tut loolu nag moo ko dal moo tax yooyu mun na daa daw dem Maroc la jëm Maroc la jëm dégg naa de man sax dama ko war a comme ni ma ko waxee barki de mu ñëw fi Argentine wala mu dem seeti yaay jàmm yaay jàmm en tout cas mën na ko ay verse de militaire la te am na sécurité foofu waaye Maroc de moom buur a fa ne amul démocratie buur ba moom da ngay toog moo gën a wóor sax nag Maroc sax na moo doon waa Ecuador tam buur a fa am daanaka kooku fa nekk du jóg mukk ndax dëkku démocratie moom bés ba fa demee ban ba ba élection am ban jëlee fa kooku uu dañ lay woo mu isin avril lañ lay def ñaar fukki at ak nangam nga nekk Sénégal waaye bi Macky Sall ñëwee nepp la ko def tëj ko ba mu dee loolu tam day ñëw de loola go naawoon cam round boobu noonu sa waaye xaw ma fa muy teere de ay nepp lañ ko def awa ay day la sa isin ab isin avril day dem ci moom de isin avril xam nga SN avril SN avril xam nga isin wa bool bool moom bu xam da koy ni mu ko sentir la koy waxee en tout cas siyaar naa leen yéen ñëpp daal en tout cas daal yaa yaay jàmmeem sàll la bëgg naa daw bëgg naa dem bëgg naa daw doyal na sëkk gëm naa la mu wax dama doyal sëkk dem rek laa bëgg xam naa loolu moo newoon sama duggukaay tey di leen siyaar bu baax a baax jaa ngeen jëf Bakke Rend la woon ki ma gis ci biir xam naa moom borom Macky Sall borom kii Diomaye Faye ak Sonko ak bri ak bri kii nii booy musku jibi jibi si si yaakaar naa la yaakaar naa moom la bari ak kan mbay fayland ak gars yu baax yëpp ci groupe bi rek si yaakaar naa leen bu baax a baax a baax ah sa taxal ma jeexale sax sama sama sama sama sama Idrissa Seck moom ah day doog a yeewu di Idrissa Seck dina demul démb ma ne ko ah gar sadi yow sa waay yow mel ni ko xaloo rek mel ni ko bëggatul dara ci réew mi waxoo defoo kaas sa waay lu négatif lu ne nga teg sa tànk mos naa ko gis dëgg la sa waay Macky Sall ku ku am ku bëgg am avenir bu baax da nga ko sori sa waay waaye kii day lab ku ko jege suux ku ko jege suux ñëpp xam nañ loolu ku ko jege suux doori yàlla la yor ku ko ye ku ko ya ku ko jege yàlla mbugal la de Macky Sall ku ko jege yàlla mbugal la xoolal sëriñ sa ko jege rek safatuñ dara Sénégal ña ko war dem di ko waxal sa waay sa waay ñoom ak gerte xottu gerte la yemale Sénégal fii mu ne ña ko war a démb affaire sax gisaguma ci waa Touba de sëriñ si murit yi waaye sëriñu murit bu fa dem murit yi nañ dagg sa ay nañ xotti sa lu bon de ay siñ bas ak ñooñu gisuma leen fa de Hi, ragal nañ siñ ba- doo ko fa gis siñ bas yu ñu di am mooy njëkk a toog ci kanam waaye siñ bas a ragal ay a- a- a- su- lo- lo- loolu sëréer naan a- a- a suuf say barke yàlla siñ bas daa daa siñ bas daa daw desem de dootul jege Macky Sall Yeah, yàlla di- xaar leen di ngeen ko fa gis de ñu ne kii siñ bas ak siñ bas mu ñëw toog ci kanam sa ay solo lu weexam xam bàyyi ko sax soppe siñ bas yaa ngi fi balaa balaa muriti di sànni may xeer eh doo leen fa gis siñ bas doo ko fa gis de fi mu nekk gars yi ne Macky Sall yëpp da koy xam na ne kii posañ la ku ko jege mu ku ko ku ko jege dee ku ko jege sa waay dee lim si siñ bas lim ku dem ba nekk porte parole murit yi sam ba buñ dama dem Touba ma ne leen ma ne ma ne booy murit yi man ma ne na ngeen def sa waay man kat sa waay porte parole siñ siñ bas dafa naay dafa sol yi rafet dama bëgg damay wër perfume maanaam photo siñ bas ci photo photo sëñ bas ci pelfiiru pelfiiru gars yi maanaam xam nga gars yi kuñ bëgg rek ci nga koy xamee Sénégal kuñ kuñ seen soppe rek Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dafa dafa raar nag dafa nekk dëkk boobu dafa raar dafa raar kuy kuy seen soppe ci téléphone yi nga koy xamee wala oto yi waaye sëñ bas nga dem ba gis ko ci oto wala perfiiru téléphone no affaire bu garaaw deuxième ki nekk parti problème murit yi nga xam ne moom moo fa taxawal gannaaw moo fa taxawal Serigne Touba dem ba doo ko gis ci porte télé oto yi sax do dug le yéen dem leen Sénégal di ngeen gis di ngeen gis yaawu jàll sëriñ yëpp da nga leen di gis ak ay yaawu jàll ak mbër yi yëpp da nga waaye ngeen gis suñ bas nit def ko ci perfilam wala otoom ay seet leen dem leen ci tax Sénégal rek li ma naan nii man dama ko vérifié Sénégal laa ne ñu ne suñ bas moo toog nii ñu def ko mu def ngandam photo ci téléphone Sénégal dem leen xool du ngeen ko gis bëri lu soppee de suñ bas xaw ma nu demee noonu nag da di kim jege la te pare loolu nag yàggul de suñ bas bu njëkk gars yi moom rek lañ leen bëggee naan borom xam-xam bi ndeysaan gone la daa bëri xam-xam mais gis nga ki ñeenti ati mu ji wala ñetti ati mu ji non ci la ci la ñàkk soppe yu bari ci murit bi lu garaaw laay wax nag boo ay murit yi nga xam ne suñ tubaa rek lañ gëm wóor na yàlla suñ bas de boo leen bu ñëwoon bu leen rombee ni duñ jóg lu garaaw laay wax suñ bas bu leen rombee duñ jóg booy murit yi xam danoo gëm murit yi xam nga dama leen tudde ko ah, kii Iran Iran mën nañu xeex seen biir ba reyante 40 morts mais gis nga bu joteeg am réew comme Amérique ak nangam ñoom ñoo fay nekk ci seen seen gannaaw état murit nag noonu la mën nañu reyante seen biir de mais bu dëgg lee bu nu waree jàkkaarloo yow ñoom ñëpp dañuy fàtte problème bi nag jàkkaarloo yow bu laa ko gis ci Iran la xeex bi Iran Iran yi xeex nga xam ne tey bu ñuy xeex bu ñu amee problème ay États-Unis wala beneen réew ñoom ñëpp dañuy dànkalikoo nekk benn waaye bu ñu reyante nag ñoom seen biir reyante loolu laa gis ci murit gi foofu dañuy reyante moom reyante ak yow waaye sëñ bas moom mu bëriwul la soppe soppe de xam mu demee noonu nag bu jógoon ni dox ni ne booy murit yi waaye nga sax ñu ne ko eh grand bas astafurlah wax dëgg ko sax wala gars yi koj ma gars yi xam na fi may jaar ñaari di jëni mburu booy murit mais ah yow yaay wax suñ bas comme Assane Diouf yow bas laa wax bas ah nag de jëlal sëriñ gi nag nag bul soxor sëñ bas rek nag ay yow booy bas laa wax moom Assane Diouf moom sama sama doom baay moom moom moo gën a fuddoo ñëpp moom wóoru gars yi li yem bi gën a rey de da- man maa la mag ak rek maa la maa la mag maa la mag maa la mag te man xanaa xamule ne États-Unis laa nekkoon ma ne ko waaye loolu moom sa waay itam mbaay yaa ngeen jëf